léegi ba àggal door a jóg kooku ab xadis la bu wér danañ ko tegtaloo itam ñetteel bi ci bi jëlee ko ci abu xumayd a toog ci jataay boo xam ne fukka nga fa ñu bokk ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen yéen day maa leen gën a xam julli yonente bi sallallahu alayhi ñu ne ko ah yow de li nga ànd ak moom ëppoonu loo ànd ak moom gënu moo bari loo ànd ak moom tey itam ni nga daan ñëwee ci moom rek lan daan ñëwee ci moom ëpp lu ma daan ñëw ci loolu moo tax jëli ci moom melokaanu julli woo xam ne yéen jëlewu leen ko ci moom ñu ne ko ah waaw kon jëli ñu gis nee na mu daal jóg tàmbali woon leen julli bi mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu na bi mu ba àggal ñu ko ah, wax nga dëgg de noonu la daan jullee noonu la daan jullee te biir julli boobu ñu julli boole na ci jotaay boobu ñu tuddi jalsatul istiraha kon moo lay ne mbooloom saxaaba yi ñoom kon ñooñu loolu Abu Humayd di wax ndekk ci ñoom itam xamoon nañ ko noonu lañ gisoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon jullee kon loolu lépp daf lay won ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moom noonu la daan ñi nga xam ne nag dañ ne euh, du surnaaluñ ko suñ tegtaloo dañ ne li ñu tudde xadiisul musi salaatahu dafa am ku dikkoon fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog ci jàkka ji mu ñëw julli-julli euh, boo bari di jullee tey muy taxawal rek daal di gaaw rafet jàng-jàng mu gaaw sëgg si gi si jóot si gi sëlmal dikk tàmbali bëgg a nuyoo asalaamaaleykum yonente bi ne ko dellul julli julli woo mu dellu defaat nam defoon del see ci bëggoon yow mu ne ko dellul julli julli woo bi mu ko defee ñetti yoon nag la door a ñëw ne ko man kat lii laa xam jàngal ma kon mu ne ko boo demee di julli da ngay def nii def nii def nii def nii wax ko ni ñu jullee ba mu jeex ñooñu ne nag comme que jàngal na ko julli googu te tuddaalewu ci jataay boobu ñu ne kon jataay boobu du sunna waaye fekk na wax jooju loolu dalil la boo xam ne dëgërut lu tax moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu xoolee riwaayaat yu am yépp ci xadis boobu ñuy tudde xadisu ci ñaawaloon julleem gi la ko jàngal waaye jàngalu ko sunna yi sunna yu bëree bëri nekku ci teg ñaari loxo ci dënd sax nekku ci te kooku borom xam-xam yi yi sax xam-xam yorante wuñ ci ne sunna la di jóge ci sunna yonente bi waxaale wuñ ko ko ci ak yeneen ak yeneen sunna yu bëree ko ci xadis boobu te teewul ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne yooyu ay sunna kon boobu xadis jàngale koom ci julli moo ko taxoon a jóg li nga xam ne boo ko defee si julli baax na yàquwut yooyu la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal waaye sunna yu teew yaag yi ca biir yooyu dafa war toog jàng si nag diine loolu mooy tax nga xam ko kon ki ñëw di jàng si ci lu gàtt mën nañ koo jàngal ponk yi nga xam ne julleem yàquwut a julli tey ba ko waxtu yu jotoon léegi mu daal di a julli waaye nag mu def yeneen yu sew yoo xam ne dafa war a di ko jàng ba mën ko kon loolu mooy sunna yaag yi ñu topp ak ba tey tegtaloo na ñoom ci xadis boo xam ne abu hurayra lañ ko jëlee ci moom mu ne kaana nabi salallahu alayhi wa sallam yanhadu fi salatihi ala suduri qadamayhi mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam bu daan jóg ci julli ñu ngi sampe ndëgg ay tànkam noonu rek lay def daal di jóg waaye xadis boobu wérut alxaafis ibne xajar ci fatxu baari nee na xadis bi xadis bi wérut la ba tey tegtaloo nañ comme ni ma ko waxee léegi ci waxi abdoulaye ibni masud maanaam wala jëfam ñu wax ne moom daawul toog jataay boobu kooku li tontam moo di ñuy wax itam ne jataay bi sunnal léegi lu war la maanaam nit ki bu ko deful woon du tax ñu ne ñu ne julleem yàqu na kon su ko abdullah ibnu masud deful loolu du tax sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def loolu moo tax albayhaqi rahimahullahu taala daf bi mu agsee ci waxi ibnu masud yooyu daf ne wa huwa an ibni masudin sahih wa mutaabaatu sunnati awlaa من وقت جيلي ويرنا أبلا ابن مسعود دانا باي جلسة الاستراحة من وين التوف سنة دي موغن جارو توف سنة موغن جارو في يوم ديك دي جلسة سنة توف كو موغن ورسيو نخطب الله أبلا ابن مسعود دانا جبل ديكو ليو تطبيق تطبيق في جيل جيلي موي سروكو def ñaari loxoom ñu dugal ko ci diggante ñaari yoomam te loolu amu keneen ku ko daan def ci saxaaba yi te taxul taxul ñu raw ko ci kon dañuy xam ne léeg-léeg borom xam-xam bi man lay jëfandikoo loo xam ne fekk ab xadis dafa agsiwut ci moom moo tax muy jëfe nale wala mu jëfe nangam ci ijtihaadam ak farloom te fekk lam def njuumte la ah ku dul yonente bi salallahu alayhi wa sallam da ngay juum saxaabi yi su waxee loo xam ne wala mu jëf loo xam ne dafa jiwee sunna yonente bi salallahu alayhi wa sallam topp sunna moo gën a yow ñuy topp kooka ak ku mën a doon ba tey tegtaloo nañ ci waxi abdullah ibnu omar كوكو البيها في موني في جفاك من عبد الله عمر كفرون سنة الله من سنة يرام صحيح من سنة صلى الله عليه وآله وسلم دعنا شخص بخمكو بكو جفة البيها في صلى الله عليه كجوة المغيرة ابن حكيم من دفة جف عبد إبن عمر من جملي من لقد مدينا وحن عبد إبن عمر دعي جفة من جل جلسة الاستراحة بسنة بسنة يعني في لنكتة الله بدليل المغيرة ابن حكيم دفن دماجس عبد الله ابن عمر ñu julli di def su jógee rek def ba fukk ci ñaari cati cati baaraami tànkam lay sant julli ci ay costanam xam ngeen toogaay boobu de sa cati baaraami tànk toog ci say costan xam nga ku def noonu toog noonu rek daal di jóg kooku dafa jalsatul istiraaxa jalsatul istiraaxa boo koy def da ngay lem sa tànku càmmooy julli ci ba diggaay bi àgg nga door a jóg nee na bi ma gisee mu def loolu ma ànd ak moom ba mu sëlmal nee na ma ne ko bi mu bëggee jóg ma ne ko yow de gis naa ngay def loo xam ne jaaxal na ma muy ñu ngay jógee nee na Abdullah ibn Omar daal koy tontu innaha laysat bi sunnati salaa loolu nga gis ma di ko def kat bokkutub li ñu sunna ci julli wa innama afalu dalika min ajli anni ashtaki ne loolu dama koy def ndax damaa yor aw métit woo xam ne moo tax may def noonu waaye bàyyi ma suñu foofu de maanaam kon yor na metti ci tànkam boo xam ne su lemee ab tànkam toog ci dana metti muy samp ñaari tànkam di toog ci ay kostanam di jóg kon Abdullah ibnu Omar moom bokkut ci nga xam ne dañuy wax ne gis ñu gisuñu jalsatul istiraha am naa lu aju ci Abdullah ibnu Abbas ak Ali ibnu Abi Talib ci nett li nett bi jële ko ci ñoom mooy Atiya al Awfi te kooku moom daif la maanaam ku ku ku faible la ci yàlla riwaaya kon jële nañ ko ci moom kon ci la mën a wax ne jële nañ ko ci moom mu doon ko sax ci saxaaba yi mooy Abdullah ibnu Mas'ud te dégg nga la ci wax moo di nan saxaaba yooyu su saxoon jóge ci ñoom itam li sax jóge ci sunna kooku mooy sunna di dëgër day jaadu ci jullit bi mu mu topp la nga xam ne mooy sunna ba tey am na leneen lu ñu tegtaloo ñoom ñu ne su fekkee ne loolu kon sunna la képp ku melal julli yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rek faaw mu tuddaale jalsatul istiraha te ñu bare bari ñoo xam ne nett li nañ ne julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxaale wuñ ci loolu ba tey day delluwaat rek ci li ñu waxoon ci xadiisu ci doon julli julli bu ñaaw bi moo di ne ñuy nett li رواية الجل ينبي صلى الله عليه وآله وسلم أمو تشمسين ونقل لبان رواية الجل يتلت نك رواية يتل يبال ودور أم جل بكمبلت فإذا رواية بخم دخل ينقل الجل يتلت لولو أمو في حديث كده ينقل لله كده ينقل لله كده ينقل لله دور دور يتلت نك جل دمر فمن لا يتبع بطلت اللي جنب دور سنة دي moo di malik ibnu alxawayris comme ni ko buxaari nettali ci saxiixam moom dafa jóge fa mu dëkkoon ca penku dikk madina spécial ngir jàng si ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na am na fi ñaar fukki fan moom ñun àndaloon nee na guddeeg bëccëg li muy def mooy di xam li ci yonente bi ak di ko xool di seetlu sew sewaay yi julleen nee na moo tax bi demee ba di ko tàggu nag ne ko dama bëgg a dellu lan la leen yonente bi salallahu alayhi wa sallam dox daf ne idhabu ila ahlikum ومروهم وكلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي دل لنا تبقية ثم دنيا نجيهم جانجل لين توخ لين لين جني فيه تنك نجيهم جلين نجيهم نجي سما دين جلين كنا ابن الخويرس مو نتل حديث صلوا كما رأيتموني أصلي سيكن دفع أمون أجئتوا بوخمي boo لدانك ne bu ci julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku su nettalee lu sew ci julli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam même su ko yéete woon moom doom it sunna la soo xam ne dañ ko war a jël ngir itti juróom jooju ak ndigal ñu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jëmale ko ci xeet yëpp waaye jaarale ko ci moom seddalee ko ci moom ni salloo kama ra'aytumuni usalli kon kooku day wane ni Malik ibn Huwayris lam nettali mooy lam gis rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko def am naa nag eh, njëriñ ñetteel bi nga xam ne dafa wax ne léegi kon ku aajowoo nooflaay bi moo koy def ki ko wax dafa fàttalikuwul ne li ko tudde jataay jalsatul istiraaxa muy jataayu noppalu dafa fàttalikuwul ne tur woowu jógewul ci alquran jógewul ci xadis waaye fuqahaa yi rek ñoom ñoo ko tudde jalsatul istiraaxa kon ñu xam ne nooflaay bi ci boppam nekkul li ñu tuddee illab atte bi nooflaay ci boppam doo illab atte bi maanaam taxul atte boobu ñëw taxul nga xam ne dañ lay wax soo sonnee soo ko aajowoo rek mën ngaa toog noppalu ginnaaw jataayu nooflaay la tudd soo soxlawuta noppali mën nga ko bañ a def déedéet su fekkoon ne tur woowu ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam la jóge kon ñu mën a wax loolu waaye nag fuqahaa yi rek ñoom ñoo ko tudde tur woowu moo tax lenn ci ñi nga xam ne gisuñu ne loolu la dañ lay wax ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam bi mu ko daan def dafa dem ba néew doole di ko def loolu amul dalil di wane ne noonu la daan def te it yonente bi salallahu alayhi wa sallam da bi mu fi jógee defe naa ne ak néew dooleem àggut ci mënta jóg ndax koo xam ne defe naa ne ba si at ñu ngi ci jógee xeexub tabuuk yaa ngi jiite ay jaar di womat ay arme di xeex di dem ak ñëw ñoom ah, seenu dund dinañu woon noo xam ne ku ci àgg ci juróom benn fukki at duutoo mën dara te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom benn fukki at ak ñett la dund ay kaaru weex sax yu néew la ci amoon moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam kattanam itam ñëwul woon ndax képp koo xam ne da ngay womat ak arme di xeex di dem ak ñu war say jaasi di wari gëneen di toppatoo sa kër sukkandikoo ci kenn kooku diisul wax ne àgg na ci bii day julli duutu mën a jóg taxaw kon daal li gën a wér mooy sunna la soo xam ne sunna su sax la xëy nañ koy guddal ndax bañ am lënt am ci ndax ñàkkul ci mbokk yi ñoo xam ne xëy nañ ñàkk am ay lënt yi ci am wallahu aalam هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى